mooy recevoir son excellence monsieur l'ambassadeur de Iran notamment iran de l'Iran au Sénégal bi nga xam ne euh, jàpp na ci relation bi nga xam ne ko waaye Kubaysen am na ko ak secteur privé bu Iran lépp ci loxoom la jaar dem nañ fa ñaari yoon yoo xam ne bu ci nekk moo ñu faciliter suñu visa yi ñu fay demee ku ne xam na ne Iran visa yombul noonu mais bu ci nekk moo koy defar ci waxtu wuñ ko soxlaa jox ñu ko ma ànd ak forte délégation dem Iran euh, def fa suñu si susuur ñibbisiwaat ma yëgal leen ni amu ci benn yoon aussi benn yoon benn yoon bu ñuy génn réew mi te yónneewuma courrier le président de la république yëgal ko ne ko ñu ngi dem Iran pour voyage économie parce que loolu laa sartoog moom à tout moment que may génn réew mi dana jot courrier ma yëgal ko ko parce que moom euh, su fekkee da nga jiitee kuréel demande récépissé ñu jox la ko euh, nekkatuloo rek benn commerçant bu nekk ci boutique institution nga jiite te entre réew ak réew soo fay dem da ngay tàggu boroom réew mi nga xam ne moom ngay bàyyee ko pour mu faciliter la ambassadeur ba nekk foofu te mu teg ko fa à que mu teertu la euh, tatagal la jàppale la ki si suur ba nga ñibbisi loolu moo tax ñu leen ko tàggu bu ñuy dem amu ci benn dëkk boo xam ne danañ ko tàggu aussi dem te fekkuñu suñu message jiituñu fa ma di ko ci gërëm moom la président de la république parce que ñaari ñaar yooyu ñu fa dem yëpp bu ci nekk fekk nañu Saliou Niang bi nga xam ne moo nekk ambassadeur bu Sénégal bu nekk Iran euh, c'est sûr yañ fay def yi amul benn bis boo xam ne du ñooy nekk ak ñun ba nañu fay jóge noonu la valable aussi bi ñuy dem Russie bi ñuy dem euh, Pologne Varsovie amu ci benn dëkk boo xam ne danañ fa dem te ambassadeur ba du jóg def ci lam ci war a def loolu nag boo gisee mu di ko def su fekkoon dañuy dem rek sans ñu yëgal borom réew mi ne ko ñu ngi dem message du ñu fa jiitu leen di yëgal ne moo nekk suñu diggante ak waa Iran moom nag mu dox ci relation yu rafet facilité yu homme d'affaires yi nekk foofu lañ fa doon sàkku lépp ñu am ko te diir bu gàtt da ngeen gis fur yu ban la jur ndax demuñu fa woon rek di def voyage tourisme dañ fa doon dem pour liggéey e, lu am importance la aussi ma di ko sant di ko gërëm ba tey moom mu war a jeexal dellu Iran wala ci beneen pays parce que ñoom a général bu seen séjour jeexee dañuy delluwaat ci dëkk ba ñu léeg-léeg ñu dem feneen moo tax mu ñëw ne tey ne dafay ñëw euh, tàgguñu tàgguwaale yéen waa Sénégal tàgguwaale membre UNACOIS yi wax ne mi ngi delluwaat waaye bu delloo itam dafay nekk presque ambassadeur u UNACOIS su fekkee mi ngi woon mi ngi Iran fu mu mën nekk ci ci àddina suñu diggante dana ko sàmm ñu ne itam dañ sàmm diggante bi ma di leen xamal leet ne euh, ambassadeur bi moom mooy dem mais ambassade bi toujours mi ngi fii à chaque fois que beneen ambassadeur ñëw fii itam fas nañu yéene taalal ko loxo ni niñ doon defanteeg moom ñu def ko ak koo koy ñëw bu sooba yàlla di gërëm nag membre UNACOIS yëpp fu ñu fi man di nekk di leen gërëm yéen journaliste yi ni ma koy waxee te bëgguleen ko sax à chaque fois ma wax ko da ngeen ne ñun ñu liggéey rek ñu def wante nag ah euh, wa amma bi nihmati ko fa addis nit ki su fekkee dafay jëf loo xam ne même boppam la koy defal soo amee xel war nga gërëm wàññiwu la dara loolu rek moo waral sama gërëm ngërëmtu ci yéen mais du leneen loolu daal moo waraloon ndaje mi tey ah, am na ci jàmm sant nañ ci bu baax itam maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ji ñu ngi assister eh, teewaay bi bunu ma gërëm munu ma ñàkk a gërëm waa inaak waaye li nga xam ne eh, bàyyiwuñ ma benn yoon ma wéet à chaque fois que mbir xew lu xat-xat tey ji daanaka wootewu ma ko waaye gis nga daanaka xajuñ ci saal bi ma leen sant bu baax di gërëm la di distingué eh, bi nga xam ne tey mooy ndey ji réew membre UNACOIS la da leen di jaaxal léegi bi nga xamee ne solo na ndey ji réew xàmmewu leen ko ndax mantom bi eh, ak ren bi nga xam ne moo jógee Casamance bi collaborateur am eh, ñoom it ñu ñëw fekk ci ndaje mi dafa am solo ma présenté leen di gërëm le président Gora Gueye eh, daam coordonnateur ak sama conseil spécial Souleymane Fall ci ñi ma seen di gërëm sëñ ñas malee nga xam ne mu ngi jógee ba kaw Kaolack di gërëm lom infatigable Gana Diène bi nga xam ne tey lii am tey ci loxoom la jaar euh, xam nga yi dañuy def en général bu fekkee dañoo dem ci ay xalam man nitu daara laa da ñibbi rek ñu naan xalam yi ni mu neexee tey xalam mooy bu googuñ ci takk fekk xalam gi neexul leket gi nga xam ne mooy tax muy dung dungi moo tax xalam gi neex gànna jén mooy xalam gi du ngeen ko gis mais mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci suuf donc bu teewee dinaa ko gërëm di gërëm la secrétaire général bu baax ci vraiment liggéey bu am solo bi discours am bu rafet bi mu def nii di gërëm Alaaji Ndiaye ak ñi nga xam ne tey ñëw nañu di gërëm waa marché du port ñooñu moom xam ngeen ne bëkk démb rek lañ tàggoog ñoom ci seen taxawaay bu rafet ñëw nañu également massivement euh, di gërëm ñi nga xam ne ñëw nañ te agsi wuñ ci saal bi gisaguma leen mais maa ngi remercier ñëpp daal loolu daal moo nekkoon ndaje mi tey perte bi nga xam ne moom la ñu jural mënuñu ko munuñu ko quantifier yéen ñëpp dégg ngeen ne inaa ko waaye à chaque fois que lu mel nii di am dafay def ay communiqué di wax ne vraiment politiciens yi de tout bord sonal nañ ñu ñu jàpp otage à chaque fois que ñu dara xew ñu fexe ba réew mi économie bi na toog loolu dafa metti trop. loolu nag ah ñu sañu ko waxal wax ak kenn ku dul le président de la république mu nga xam ne tey mooy gardien de la constitution xam ne moo yor suñu sécurité économie réew mi ci loxoom la nekk ginnaaw bu ñu ko saytoo ñun secteur privé. lay tax jàmm am fi ba ñu mel nii sawar fee ñëw ak yeneen partenaires yi nga xam ne secteur privé dañ ko am réew mu dal la ñuy jëm si. waxuma la li ñuy yàq manque à bi am ci jour yi ñu yi ñu tëj duñ jaay waaye ñi koy dégg bitim réew war a ñëw investir fii dañuy am tiitaange te loolu aussi ñi ngi ñaan yàlla vraiment mu mu dakk lépp lu koy waral daal ñun secteur privé ñi ngi ñaan yàlla loolu ñu bàyyi ko parce que ñun waruñu dugg ci juger conflit bu am parce dañuy def politique mais actualité fu mu amee boo nekkee responsable doo daw benn question bu ñu la wax man lool du sama jikko ndax la ma cay wax lu ma war a wax la en tout cas ñi ngi leen di ñaan daal ñu xam ne euh, Sénégal ñoom moomuñu ko ñun ñoo ko moom am na sax ñuy wax souvent ñaari citoyen yu amalante affaire la donc dafa nekk affaire privée mais euh, dafa nekk euh, affaire privée mais du dafay wuute ak sama bopp laa bëgg a tudd Cheikh Cissé mu moom daaloon tey man na maa dem ba ñëw kenn du ko yëg nit ñi il faut ñu xam ne am na role boo xam ne noo xam ne danga ko toll ci réew ci dimension ak ñu considéré la sa mbir du woo day wuute ak un individu bi nga xam ne dafa am problème tribunal coow li ci am lépp nit ñi ñoo war a nangu nangoo xam ne ki nga xam ne moo am affaire du n'importe qui bu doon fukki nit itam gëm nañ ko su waxee ñu déglu ko kon il faut nit ñi xam ne état Sénégal il faut mu taxawe taxawaay bu mel nii notamment la sécu la sécurité publique. parce que bu fekkee ne waxtu wu nekk loolu fa am nii tribunal bëgguma ko tudd mille fois ma nga fay am te kenn yëgu ko kon boo gisee mu demee nii ki ko waral moo am dimension bu toll noonu kon il faut état Sénégal taxaw taxawaay bu toll ni ki am affaire bi su dul loolu rek àddina tukki. damay tontuwaale ñi nga xam ne dañuy wax ne affaire civile la état waru ki dugg xamuñu luy état su boobaa tey su fekkee ne état dafa croisé le bras ñetti fan lañ koy def réew mi tàkk du dëgg loolu du dëgg li nga xam ne moo am mooy kim ki mu dal nit la koo xam ne personnalité la boo xam ne bi sénégalais yi ci ëpp bàyyi nañ ko xel su loolu amee su wootee ñu fekk ko fa danañ ko fa fekk su wootee nañ génn danañ danañ génn parce que yàlla moo koy def parce que bu fekkee dafa opté nekk politicien am leadership bu toll ni bu wootee xale yi du ñuy gëlëm fekki ko fa mu nekk wootee la war a bañ a def su fekkee dafa depuis le début daf ko dal mu xamal leen ne lii de natt la bu ma dal wala buñ ma jiiñ du ma wax ne moom na dal parce que man du ma ci dugg waaye maa ngi wax ñëpp ñi nga xam ne dañoo yaakaar ma yóbbu ëllëg ma nekk quelqu'un ci réew mi bu ci kenn dugg sama mbirum bopp la bu ma kenn fekk fenn nañ toog diglu ma lu ci yoon def ñu bokk gisandoo ko kon mbir mu demee nii. waaye su fekkee nit dafa am benn problème woo ñëpp ne nañ ko ca jàppale àddina dagg topp ko médias yi nekk ci bitim réew dans le monde entier ñëpp baraake wu Sénégal ñu bëgg état Sénégal toog bu mu génne ay policier bu mu génne ay ay chars de combat ñooñu ay dof lañu bu ñu ko deful bu subaa ñun ñu torox ñun ñoo njëkk a torox réew mi day tàkk dama ne maa ngi encouragé état Sénégal ci lii am ñu génn a renforcer seen doole parce que suñ ko deful ñun ñu torox état Sénégal état moo yore sécurité un individu mënul am sécurité boppam yore arme boppam di défendre boppam munul am état mooy défendre ñëpp li ci dugal état kuy wax dëgg xam na ne bu fekkoon ne bii dafa mel ni ya fa am nii te périodiquement muy am tribunal état du ko yëg yoonam nekku ci mais Sénégal mooy bëgg a tàkk ñëpp di ko dégg yaa woote lool te yow nit nga ko xam ne boo doon wali son sax ñu topp la mais foog état Sénégal jóg défendre musiba moomu loolu laay wax ci boobu côté di gërëm état Sénégal di ko ñaanal moom mi nga xam ne moo nekk ci guddi yàlla génne ko ci ndaxte lii musiba la moo xam ne kuy nit tey am xel war nga ñaan yàlla mu yem fii waaye nag euh, di ñaax euh, sénégalais yi aussi di ñaaxaale samay waa kër di ñaax sénégalais yëpp di ñaan ñaax xale yi na leen réew mi ñoo ko moom <coughs> bu leen kenn influencé ki taal ko de tout bord laa wax nag amut kenn koo xam ne kii dana leen defloo loolu te bu doon doomam dana ko defloo wala bu doon moom dana ko def nañ am suñu xel am na loo xam ne moo gën a gaaw téye damay wax fii léegi ne euh, allahumma malikal mulk dama koy wax tout du ma ko firi waaye tey dama leen koy leeral yàlla mooy joxe nguur ci ko ko soob tuxutil mulka man tasaawu bu la koy jox danaa na am watan su gis nga jële gi mu koy jële ci yow dafa metti xam nga tuxutil mulka dafa la koy jox watan suhul mulka bu la ko jox da koy rocci allahu waahidul xaxaar bu la bu koy jël da koy rocc doo ko yëg comme koy rocc ruum ba ngay daan doo ko yëg wa tuxiisu man tasaa wa tusilu man tasaa bu yàddigal xayra innaka ala kulli seen xadir dara jarul ci àddina xëccoo lu li am lépp yàlla tracé na ko jaru ko de tout bord nag laay wax dara jaru ko ci àddina yàlla noppi na ci lépp loolu laay wax ci li nga xam ne moom ngeen ma laaj ci question boobu